boo defee léegi ak mbokk ci diine nag dafa am ay ñetti ñetti àq yoo xam moom lañuy ñuy wax ni mooy mooy dëgg-dëgg yi àq yi jullit ak moroom ji a seq benn bi mooy ba ci jëkk mooy bëgg bëgg bëggante ngir jëm yàlla yéen tamit sama tool dafa ne képp ku bëgg ngir yàlla bañ ngir yàlla joxe ngir yàlla gan tere ngir yàlla matal ak nga am léegi booy bëgg na yàlla tax booy bañ na yàlla tax booy joxe na yàlla tax booy gàntu ñàkk joxe na yàlla tax nee daal képp ku dajale ñeent yooyu rek suñ nga moom mat na. am benn hadis boo xam ne ñett xam ñetti ngi yoo xam ne comme nekk ci yow rek da nga yëg neexitu ngam yàlla. mu yàlla ak yonent bi gënal la ku ñoom te nga bëgg nit ki te bëggee woo lu ngir yàlla ñetti mbir yi ku ko yëg neexitu ngam yàlla da nga yëg mooy yàlla ak yonent gënal la ku dul nga am koo bëgg te bu nga xoolee sa xol yàlla képp ba tax nga bëgg loolu yi ba tey dana dana jox jox neexitu ngam ci xol xol nit ki. bañ a dellu ci ak kéefar ak kéefar bi nga nga ni nga ni nga ragale sawara bu ne ci bëggoon a puus ni nga koy moytoo ngay moytoo ak xamante ni lépp luy nuru ak kéefar ba hmm. loo xamante ni mën mën ko jege fenn nga ko ni am na juróom-ñaar ñoo xam ni suñu borom bu ñu demee genn ker lu am bu dul keru ars ndax suñu borom dañuy xaw di wàcce jant bi ba tollu ci benn mil benn kilomètre bu jege nit ñi ba am na ci ñoo xam ne yàlla na wax na ni am na ci ñoo xam ne danañu ñàkk ba lab ci ñax am ci ñàkk day ñëw ba toll ci seen i woo am ci ñoo xam ñàkk yi day toll ci seen seen dënn am ñoo xam ñàkk yi dina dem ba xaw a am ñoo xam dañuy nekk biir ñàkk ndax yenn kër amul bu dul këru aras waaye nag am na juróom-ñaar ñoo xam ne yàlla yent bi ne bis boobee kër dul am bu dul kër boobu rek suñu doon gaa ngi kër ci biir kër boobu ba ci jëkk mooy élément du maandu njiit njiit lu maandu jiite nit ñi ba noppi maandu bu ñaar bi mooy gone boo xam ni dafa dafa tàmm ak jaamu yàlla màggale ko gone boo xam ne dafa tàmm ak jaamu yàlla màggale ko ak bu ñetteel bi mooy koo xam ne suñu dafa aj ak ci jàpp nga xam ne bu ne ni ngi contrôlé waxtu yu julli saa bu waxtu bu jullee ba ñibbi it bàyyee na xel waxtu wu ñaareel ba bu bala moo rek mu waaj bi nekk li fekk si kooku na xam ne bu genn kër am na lu keroog ak suñu borom dina keral ca ci des nag mooy daanaka moo moo moo moo ànd ak desu tey mooy ak ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ngir jëm yàlla nga xam ne yàlla képp mooy leen boole bu ñuy ànd daje yàlla leen dajale bu ñuy tàggoo it ci yàlla la ñuy tàggoo. genn ker amul gul ker keroog aras boobu suñu borom dana leen boole ci ñoom fii. ñoom fay ki ci des nag mooy koo xam ne góor goo xam ne jigéen ju am daraja am taar daf koo woo ci boppam. mu xool yàlla ba ragal yàlla ba tax na nga wutal jaxasoo moom ne ko rax axa ko axafu laax ku ku ku ko def suñu borom wala boole ñu muy keral gis nga nga koo xam ne dafa jël ab sarax ci ndijooram joxe ko waaye nëbb na ko ba càmmooñ bi du xam lu ndijoor bi joxe lépp ab am màndargal rek ci euh, sori ak yësam maanaam sellal ko ba nga xam ne. waxuma la keneen di ci yëg dara waaye bu fekkee ñaari loxo yi ni ñu lànge sax li ñu yor bi joxe càmm du ko du ko xam. Mm-hmm. waaye ci ci sellal mm-hmm. ci lu baax la ngay def ne joxe na ab sarax nëbbu ko ba li ñu bi joxe càmm bi du ko képp ku doxee loolu ba tey ñi nga xam ne suñu borom la leen keral ëllëg bis boobu nga xamante ni genn keral bu ñu keral loolu. ba ci des dafa wéet fàttaliku yàlla di ko xalaat ba ak ren ko yëngu moo ko gis boobu rek suñu borom dana ko boole ci ñoom kër juróom-ñaar ñu daan leen juróom-ñaar ñoo xam ne bis bu bu yenn leen noonu jàpp nit ngir jëm yàlla ak yëkkati sa tànk seeti sa mbokkum jullit ngir jëm yàlla daa bokk ci liy maye cofeel yàlla daa bokk ci liy tax suñu borom mën sopp sopp jàmm yéen itam sama sa natt li koo xam ne dafa jóg di seeti mbokkum jullitam ci barab léegi yàlla yebal am malaayka mu xaar ko ci yoon bi mu ñëwee mu laaj ko foo jëm mu ne ko dëkk sàngam bee laaj mu ne ko loo fi wuti mu mu ne ko am benn njariñu àdduna boo boo booy dàq ci moom tax nga di ko seeti mu ne ko déet dama ko seeti dama ko seet nga jëndee mu ne ko ndaw laa lu jóg ci sa borom ñu ngi lay xamal ne sopp na la ngir li nga jóg di seeti nit ngir jëm nga xam ne kon ba ci yëkkati sa tànk seeti sa mbokkum julli te yàlla képp tax jafe cofeelu yàlla ngi ci biir. moo tax lu baax fi mu nii daa daa mel ni lu jafe ba noppi yomb ba noppi mel ni lu yomb ba noppi jafe. ne lépp lu si am fi mu toll ndax léegi am na lu ngay demee day lool waaye lu yomb loolu it day mel ni la si laxas. loolu nag ku bàyyi xel nii jóg def dara nii loo xam ne xool nga sa xol ba xol bi jeex waaye yàlla képp tax loolu bokk na ci li ëpp solo ci ñett am na xadis boo xam ne yàlla dafa wax sama cofeel war na ci jox naa ko ñi nga xam dañoo bëggante ngir man ak di jataayoo ngir man ak di joxante ngir man maanaam léegi bëggante ngir jëm yàlla ak toog di jataayoo te yàlla ak di joxante te yàlla képp tax kenn ku ne loo yar jàpp te war a bëgg ne ngir jëm di seetante ngir sama jëm ñeent ñoo ñoom sama cofeel jox naa leen ci kàddu yàlla. benn xarit yonent bi sama sën dafa wax ni du ngeen tàbbi àjjana mukk te du ngeen a gëm li fi gëmu leen du ngeen tàbbi àjjana daal ne tey it leen a gëm mukk te du ngeen a bëggante daal ndax xam du ma leen leeral mu ngeen def bu ko aakee ah mu ne da ngeen di siiwal am nuyoo yooyu seen diggante fexe ba di di di di jaxasoo di seetante kenn ku gis sa borom jëkk koo bii kenn ku ne bëgg a jëkk nuyu sa borom joxante am nuyoo boobu bokk na ci lii tax ak cofeel ubbi ko diggante nit ñi te tax ñu a doon ay jullit ñu tàggaate hmm. dafa dafa xam ne du hmm. yi tëb da ngeen xam ngeen lu def bëggante ñu ne am diggante tasaare ak nuyoo ni kon mbir mu mu sew mi ngi ci mi ngi foofu mi ngi ci lii ma wax nii muy léegi mbooloo mbooloo mu mën a ànd day fekk ne seeni xol niroo ci sellal ak bëgg lu baax waaye bu fekkee léegi kenn ñaar ñaar dañu bëgg ànd te kenn ki sellalul sax ànd bi du ma nekk naka noonu bu fekkee bokkuñ bëgg-bëgg ni bëgg na lu baax bi du ma nekk ànd boo gis rek ci mbooloo mu jullit mu ànd rek dafa am relation bu dox ci diggante seeni xol ba tax ñu war a mën a ànd moo xam ne ak bëgg lu baax daa bokk sellal moo koy la te suñu borom dafa wax ne inna alladina amanu wa amilu saalihaati sayaj'alu lahum rahmaanu wuddan ñi nga xamante ni ñoo dañoo gëm di def lu baax suñu borom dana leen defal ak cofeel léegi nag loolu ñu di ko ñu di ko firee ni mooy da lay defal ak cofeel ci xoli jullit yi jullit yëpp bëgg bëgg la ku la gis bëgg la bu fekkee léegi dangaa dangaa gëm ba def lu baax waaye am na beneen bu ko firee ñu ne léegi yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne dana la ak cofeel ci kaw suuf ndax yàlla dafa yàlla dafa ne saa bu yàlla bëggee ab jaam day wax jibril ni ko diw sopp naa ko nanga ko sopp jibril daal di koy sopp daal di wax asamaan sépp ni leen suñ borom sopp na diw sopp leen ko ñëpp ñu maa si sopp bu ñu ko soppee nag ñu ak xabool tegal ko ci kaw suuf ku mu dajalati ci ak julli bu mu dajalati mu bëgg ko daal waaye saa bu bañee ab jaamu bu defee dara lu mu ko bañee day wax jibril ni ko diw mi bañ naa ko nanga ko bañ jëm si bañ ko daal di wax malaaka yëpp ñu leen diw suñu borom bañ na leen ko bañ ñu bañ ko ñu wàccee ak bañal ci kaw suuf comme dañu leen bañ. dañoo di wax loolu dem seen seen seen. naka noonu it jaam bu ne ëllëg kam daan àndal bëggante moom la kooku lañ koy booleel. moo tax ñun benn waay bu ñëwee ci yentu sans suñu kañ la bis penc yentu ne ko loo ko waajalal ñu ko daal nag xanaa bëgg naa yàlla bu wérante. mu ne ko yaa yaa ñooñu nga ànd yaa ñooñu nga bëgg yéen a yéen a dajeel. ana si may dina gis boobu bëgg nañ mbég si wax mosuñu mbég mbég si mooy mel ngir yëg nañ ni bëgg nañ yonente bi bëgg nañ yow bokkee bëgg nañ amal bëgg nañ ginnaaw ne yëg nañ bëgg nañ leen te yonente bi ne nag nit ki kum bëgg kum bëgg dina ànd ak moom ëllëg loolu sant nañ loolu ñu itam ñu ngi ciy sant bu baax ci bëgg bëgg Sëñ moo tax yonte bi ci loxol Muaas ibn Jabal ni ko Muaas bëgg naa la lool waaye na nga saxal saa boo jullee ba noppi na nga wax ne allahumma a'inni ala dikrika wa shukrika wa husni ibadatika mu mel ni kon ak bëggeel yonte bi saa su dana ko dama laa bëgg lool saa boo jullee tamit da nga saxal lii mu mel ni kon bëggeel ga daf koy wan lu koy jëriñ diggante ma borom hmm. loolu ba tey kon nga xam allahumma a'inni ala dikrika wa shukrika